yaa rasulullah Aysa na ñëkkal jóg ñëw ci waa ji ni ko sama borom kër ma yónni sama borom kër nee na bu fekkee da ngaa bëgg journalier mu ñëw jàppale la. Oustaz sa turandoo mooy rasulullah Aïssa daw ñëw ci Seydouna Mouhamed di ko nabi waa ji nee na bëgg na journalier Seydouna Mouhamed ak taar ba ak yaru ba ne ñëw kenn jóg ñëw fekk ci waa ji muy root mu ne ko est ce que mën nga maa jël mu ne ko mën naa laa nu muy demee waa ji ni ko saa benn paan ma fay la ñetti tàndarma Seydouna Mouhamed root benn paan waa ji fay ko ñetti tàndarma yaa xayru xalqillaay beneen paan waa ji fay ko ñetti tàndarma yaa rasulallah nabi di ko rootal beneen paan jël baag bi dugal ci biir teen bi ndake jinne seytaane yi ñoo téye baag bi yaa xayru xalqillaay rasulullah xëcc baag bi jinne yi téye baag bi yow yaa rasulullah nabi xëcc baag bi jinne yi téye baag bi ay nee leen nii ñu màggal yaa rasulullah rasulullah forcé baag bi baag bi dagg ci biir teen bi njool màkk di jukki di jukki di jukki ba mu yegsi gisul baag mu gis bu mu kase mu tourné ci patron bi ko jël muy liggéey njool màkk wan ko ko ni ko ah waa ju baax dafa mel ni baag bi dagg na ci biir teen bi de waa ju tourné gis Seydunaa Muhammad rek mbéj Seydunaa Muhammad yow yaa rasulallah ni ko taaj mbéj ni ko lu tax nga dagg sama baag yaa xayru xalqillaay malaaka yi def délégation bëgg a song waa ji ay kooku mooy rasulullaay nabi ni malaaka yi stop man maa tooñ de maa dagg baagu jaambur amoo leen droit laal waa ji da koo xamul moom mooy rasulullaay yool màkk jël ñaari loxoom teg ci catu teen bi commencé wax ak yàlla ni ko lu jiitu may juddu ci nga rey sama way juru góor damaa juddu xaw ma ko ma am juróom benni at nekk ak sama yaay ñu dem ba ci àll bu tàng yow yàlla nga rey sama yaay sama maam génn àdduna eh ma am juróom-ñetti at ma nekk sama maam nekk ak sama maam ba ma am juróom-ñetti at sama maam génn àdduna ma jóge ci sama maam ñu dénk ma sama baay bu ndaw ma am fukk ju juróom-ñaari at yu tegal ñeenti yu tegal juróomi weer wànnent daaneel ma bi ma amee juróom-ñetti at sama maam génn àdduna ñu jox ma sama baay bii di Abdul Manaaf sama baay Abdul Manaaf téye ma téye ma ba ma am ñeent fukki at ak lu boobu génn àdduna ñu am ñetti fan yow yàlla nga rey sama soxna ba tey taxul man Seydunaa Muhammad maa ngi muñ yow yàlla bu la neexoon nga jox ma ay milliards nabi nee na dox naa ba tàyyi dajeeg garab yi garab yi naan ma tee ngeen maa bàyyi ma soppaliku ñun nekk alal nga jaay ñu Muhammad Muhammad ni du ko ko def de ne romb naa ay montagne montagne yi naan Mouhamad ñu nekk or njool màkka ni du ma ko def de nee na romb naa dex gi dex gi naan ma bàyyil ma nekk meew ni nga xiifee jaru ko ni leen yàlla ma wax ni ma wadaaka rabbuka wa ma wala al axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda xanaa da ngaa fàtti démb alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka ailan fa aana yàlla tey dox naa ba nu mbéj ma te loxo musul laal ci sama kaw sama yaay musu def sama baay jotuñoo gisee sama maam musumaa dóor kii ma yar musu maa door kii moom a njëkk door tey te maa tooñ li tax ma tooñ ko mooy maa dagg baagam njool maa ko jël ñaari loxo yi teg ci catu teen bi yuuxu ni rabbi la tazarni fardan wa anta xayru waarisin ay yow yàlla bul ma bàyyi ma wéet boo ma bàyyee dina métti nee na yàlla ni ndox mi génneel mbooleem baag mu ne ci teen bi nga gis ndox mi yuuxu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi ba ci catu teen bi mbooleem baag bu mu sa dagg ci teen bi génnaale seyduna muhammad téyi baag yëpp ñëw wan waaji ni ko xoolal buy sa baag nga jël ko yi ci des nga delloo ci teen bi moom mooy rasulullahi seyduna muhammad daa di tourné daa di dellu këram kii mooy xayru xalqillahi njol màkk dellu këram waa ji di takkat ay bagage am ay waay ya rasulallah fi waa ji taxaw di takkaat ay bagage am njol màkk dem na këram benn waaye fekk fa waa ji kii mooy xayrul anbiya ni ko def nga lu ñaaw ndax xam nga ki nga mbéj kan la mooy yaa rasulallah waa ji ni ko lijjanti wu ko dafa dagg sama baag ma mbéj ko mooy xayru xalqillah mu ni ko kii nga mbéj màkk ñëpp na nañu lu yàlla bind moo ci gën a yaru mooy waa ji ni ko sama yoon nekku ci moom mooy yaa rasulullah mu ni ko lu yàlla bind moo ci ëpp kersa kii mooy xayrul anbiyaa mu ni ko sama yoon nekku ci moom mooy rasulullah mu ni yàlla bind moo ci gën a yaru kooku mooy xayrul anbiyaa mu ni ko sama yoon nekku ci ya rasulallah waa ji ni ko kii nga mbéjay muhammad ya rasulallah waa ji ni ko kii ma mbéjkan la ya rasulallah mu ni ko kii nga mbéj mooy muhammad ya rasulallah waa ji aj loxo bi jooy ni kii ma mbéjkan la ya rasulallah ñu ni ko kii nga mbéj mooy muhammad ya rasulallah waa ji jooy ya rasulallah ni musuma koo gis ya rasulallah dama dégg mbaaxam rek ya rasulallah di ko wër ci àll bi ya rasulallah dégg kersaam rek xayrul anbiya di ko wër ci àll bi ya rasulallah musuma koo gis ya rasulallah moom laay wër nii ya rasulallah naka ki ma mbég mooy sama soppe ya rasulallah jooy jooy yu metti rasulallah da wuti gileemam rasulallah rocci semmiñ bi mu yoroon rasulallah xool loxo ndey joor bi rasulallah ni ko yow ma mbég sama soppe rasulallah ngay seetaan ba ma mbég ko rasulallah tourné loxo ndey joor bi rasulallah rasulullah ni ko dootuma la xool rasulullah dootuma ànd ak yow rasulullah kii di sama xarit rasulullah gënal ma sama àdduna rasulullah nakate moom laa mbéy yow ya rasulullah di xuloog loxo bi ya rasulullah di ci dóor simmiñ bi ya rasulullah dina ji tuuru ya habiballah waa ji di jooy ya xayru xalqillah naan loxo nday joor bi ya habiballah dootuma ànd ak yow ya xayru xalqillah sama soppee laa dóor mooy rasulullah di dóor loxo nday joor bi mooy rasulullah dina ji sotti yow ya rasulullah waa ji di jooy ngir cofeelam ci rasulullahi di door semmeñ bi di door semmeñ bi ba loxo bi tàqali ko waa ji jël loxo bi ñu ko rusati naa ànd ak yow ngir li nga door Muhammad sànni ko ci mbalit mi topp ali bi jooy topp ali bi jooy ba dugg kër yonent bi fekk na bi toog Aïcha naan ko ay Muhammad naaj bu tàng bi nga nekkoon rasulullah lu xonkal sa lex bi rasulullah nabi ni ko rasulullah bi may liggéey sànq rasulullah bi ma doon téye baag bi rasulullah ak ni naaj bu tàngee yaa xayru xalqillah moo xonkal sama lex bi yaa rasulullah ñu toog tuuti xayrul anbiya waa ji dugg si xayrul anbiya yam ci yonent bi xayru xalqillah di jooy di jooy di wax ak yonent bi ni ko na xam nga ma nabi ni ko déedéet rasulullah mu ni ko xam nga ma nabi ni ko déedéet waa ji jooy ni ko xam nga ma nabi ni ko déedéet rasulullah mu ni ko maala mbég léegi rasulullah xammee nga ma rasulullah nabi ni ko lu xew xayrul anbiya mu ni ko bëgg la rek xayru xalqillah suba ak ngoon xayrul anbiya bu dégg bëccëg ya rasulullah yow rek laay wër xayrul anbiya talatuma lekk rasulullah talatuma naan rasulullah fii nga ma gis xayrul anbiya def naa fi weer xayrul anbiya di fi bay xayrul anbiya di lekk rasulullah ngir bëgg laa gis rasulullah ku ne neexal naa la خلق الله خوما نومل خير الانبياء تيلا جوم بغت سيدنا محمد نيكو لو بغ واجي جوي ni ko nabi baal ma nabi baal ma direct jaa ngi sotti nabi baal ma Seydunaa Muhammad ak reetaan bu rafet ba nga xam ne Seydil Haaji Malick nee na jol màkk lépp ma rafet nee na bu mu sànni reetaan da ngay gis leer gi ni muy dawee ci gémmiñ gi Seydil Haaji Malick nee na iza takallama bi an min bayni tanaya wa ma fi xawli min wasami Alaaji Malick nee bi mu jëlee waa ji taf ci kawam nga xool loxo yi ni mu nooyee moom Seydunaa Muhammad wala xariirun wala tasimi ah, Seydi Hadji Malick nee na bu siggee xool la ak ni jëbi rafetee da ngay foog ne dañ cee teg seetu min nuuri aynihi xad zanna naziruhu isa taajjana an xad xaadimin xikamin Seydi Hadji Malick nee na Seyduna Muhammad ni muy gisee bëccëg noonu lay gisee guddi jarul muy tal lamp yara bi zalmaa nuurul alamina kama ala diya in yara saddiq wala taximin waa ji jooy toog ci kanamu yonent bi yonent bi ni ko leen nga bëgg bëgg atadru maxtuman ajanan majalisu wa badu dajannati nabi baal ma ya rasulallahi nabi ni ko baal naa la xayrul anbiya mu ni ko est-ce baal na ma leen mu ni ko yàlla baal naa la rasulullah mu ni ko yow ku la merloo rasulul yàlla mere ko rasulullah yow nabi ku la merloo rasulullah yàlla mere ko yàlla wax ci alxuraan ko wax yàlla na xul kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yàlla jéggaleen seeni bàkkaar ay nabi baal ma xëyru lan bi yaay nabi ni ko baal naa la nabi ni ko waaw diw dégguma leen an sa loxo bi mu ni ko dagg naa ko nabi ni ko lu ko waral mu ni ko rusa ànd ak moom ngir dóor bi ma la ci dóor nabi ni ko demal nga indi loxo bi waa jeeg deret ji rasulullah di wër loxo bi ci àll ba egsi ci mbalit mi ñëw téye ci loxo bi ñëw ba ci yonent bi di ba nabi loxo baa ngi loxo bu yées a ngi xaw ma lu mu doon xool ba mbéj la jomb naa sax di dend ak moom nabi jël loxo bi xool asamaan si xool suuf si rasulullah déglu jibril xayrul anbiya jibril jëpp wàcc ya rasulullah ni ko yàlla nee na ya rasulullah waa principal rasulullah ak waa Dantec rasulullah ak waa Fann rasulullah ku ñu faj ba mu wér ya rasulullah ci sa barke la ya rasulullah nabi jël loxo bi ya rasulullah yëngal yëngal ya rasulullah ni rabbi xayrul anbiya la tazarni fardan xayrul anbiya wa anta xayru warisina rasulullah jël loxo bi rasulullah delloo fi mu nekkoon rasulullah waa ji yëngal yëngal. rasulullah loxo bi deñul. rasulullah mu yëngal yëngal. rasulullah loxo bi deñul. rasulullah mu ni ko ñaan si. rasulullah moo la dóor. rasulullah alaaji Malick si. rasulullah nekk gaayam. rasulullah di nettali loolu. rasulullah taklibu axyaani. rasulullah taklimul bahaayini. rasulullah taksirul xalili. rasulullah shifaul akmahi. rasulullah daminu ak sufatin. rasulullah tasbiixu at imatin. yaa rasulullah shakwal baxiiri. xayrul anbiyaa. wa shakwa tayri. xayru xalqillah. العالمين يا رسول الله ورث الإمام نيوم مقال سيد الله مالك من الإمام